jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ngeen gisee ki ñu toogal na xëy na miin ngeen xar kanam gi naam euh, muy Serigne Mor moo xamante ne ku yàlla baaxal la mu yëngu ci wàllum ñaan gëj naa ko jël nag waaye du ci man ci moom la saa su rek boo ko woowee li muy gën a dëkkal sa nopp mooy ah génn bu bari bi amul njariñ <laughs> man moom saa yu ma ñëwee wi ñaar loxo moo koy jaajëfal bu baax tey nag moom la ñuy seet si fekk ko mu sol maillot équipe nationale bu Sénégal ndax temps yi nag équipe nationale bi mooy bombu ku solul leneen lu dul maillot équipe nationale yaakaar naa ni mooy loolu ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëwel waxtaan bi sëñ bi maa lay nuyu baax di la <laughs> ba ma sant yàlla julli seen bi. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur. Mm-hmm. di sant sama yaakaar àddina ak alaaxira mi sëñ Si. radiyallahu anhu ñaan yàlla yokk leeram. Mm-hmm. ci si barkeem. di nuyu waa Sénégal gépp di baal ak ñëpp. di baal ak bu mag a mag a mag a mag. si ndam lu rëy bu baax a baax a baax Hmm. di leen ñaan ndam yi jigéen hmm. di sant population Sénégal gépp gépp gépp gépp ñu si ñëpp jàppee hmm. ndam li moom du ndam kenn ndam ñëpp la ndax ñëpp si sonn kenn ku ne yaa ngi nekkoon su ruq di def li nga yaakaar waaye yàlla nanguñu du ndam du suñu borom moo jox ndam bu fi benn sëriñ ndam yàlla rek ko delloo amee ah, yow gis naa ma jël benn sëriñ dama koy tudd sant yàlla mu am lu wax nga woo Mhm. dama ah sant yàlla mi de li mu wax dëgg la Sénégal kenn mënul wax ba du jël coupe bi. Mhm. nga confirmer loolu ba pare nga ni du benn sëriñ bu tax Sénégal jël. xam nga yàlla suñu borom mooy may xaay bu. xaay mhm. bu maanaam lu nëbb. dina am ñu ko feeñal. yàlla mën naa woon leen mu ñuul kukk. nga xëy mu weex tàll. am na sëriñ yu bëree ba du taxoon ni Sénégal du dem quart de finale. du jeex. am sëriñ yu bëree ba du taxoon ni Sénégal du jeex. te yàlla suñu borom kàcc loolu nañ ñëpp tey. ñooñu lan la ñuy wax waa koñ ba. waaw loolu moom ba <laughs> loolu moom lu ma yéem la. waaw parce que xam nga man bàjjil man nee la. man soxoruma. Mm-hmm. sa métier bu ma nekk mu ñu teg man li ma si war a dama ko si am. Mm-hmm. ku nekk tamit li ma si war am ko si am. sant def na vidéo ba moo wala ñu lu wax la. Mm-hmm. parce que man man football mooy sama métier. damaa sob sax di wax gis naa si lu wér loo xam te ni moom wóoroon na ma ne bu soxor amul. kon dina fanaan Sénégal. wax ma apprécier nangul ko ne ko foofu moom suñu borom am na lu nga fa moom hmm. du dindi hmm. te loolu moo am hmm. waaw gis am na ay sëñ yu bare bare ay kilifa nag yu mag bàyyi ji lii nanuyu mët ñu taxee tudd suñu borom ñun duñ yàlla duñ duñ malaak duñ xubu ay doomu ay ma jaay kas lan Njaay moom dépassé na seen niveau dépassé na ci doomu aadama. ndax ñun duñ yàlla duñ malaaka duñ yéen ay doomu aadama kase amul benn sëñ bu ne maa saraxe xar maa saraxe bëy maa saraxe nag bu tax ku bi ñëw lan moo tax ku dem gis ku bi ñëw. Hmm. sarax na lépp ba sarax gërëm. ndax hmm. ku bi ñëw dem di app bi mu soog jot lu jot yomb waaye lu sotti am borom. Hmm. début compétition ba day waxuma soxlawul may wax parce que Sénégal suñu Sénégal la. xubbul wata iman bëgg sa réew daa bokk si jaamu yàlla. waaye ñun sëriñ ci moom man sax ñu rek sama mbokk sëriñ laay waxal. nan defar suñu toogaay. Hmm. waaw nan defar suñu toogaay si côté. kon toogaay bi jekkul de. déedéet jekkul. ah tey nga sañ ko wax. am na man boog. Hmm. bëggatuma sax fësal ni sëriñ la. lu tax. waaw ndax dina ma tuuti si dëkk ko wax ah ay finkal la. Hmm. te loolu mooy la am. boo leen sëriñ la rek koo toll nii ah la loolu am. ñu dëgg bariwul dafa ñu tomasee la daal. Hmm. kon looloo tax ngay gën a nëbb sa image di bañ a génn ñu lay boole ci. est-ce xam nga ni Sénégal sëriñ moo fi ëpp trondo <laughs> waaw parce que ñëpp ay turandoo ku tuddee sa doom sëriñ boobu boobu léegi ku jub da génn ne yow sëriñ. Hmm. mais sëriñ bi est-ce que tey sëriñ bi génn ne équipe nationale bu Sénégal du dem quart de finale. Hmm. bi dem demi-finale. ki ne équipe bi du mus jël coupe. ilaa yawmi din abadan mm-hmm. ku équipe bi jël ko mm-hmm. ki génn na équipe bi li ma leen defal man maa ko def mm-hmm. ci nangam ak nangam laa ko def du mos jël ko sëñ bi ñooñu bu équipe bi jëlee ko nan la ñuy xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen daan ñaanal te ñaan yàlla nga xamante ni yow moomoo ko <laughs> da ngay suñu borom mooy dogal kooku nan nga leen xoolee ñi la doon ñaan waaw xam nga ñun Sénégal ñi fi ëpp xam-xam laa la wax. Hmm. Sénégal. Hmm. si réew naar lañ jàngee xam-xam. Hmm. Égypte Maroc ak Turquie. sam ñu la te ñu ñu fa bëgg ñoon gañe leen kon gañewu leen si ñaan. déedéet. mais ñaan bokk na ci de. namu namu suñu borom ma ñëw. bu si ñaan bokkoon penalty Sadio Mané Sadio Mané du ko raté. bu njëkk bi waaw waaw kon du ko raté bàyyi jël. namu namu suñu borom moo ñëw. mais sëñ bi. penalty dugal gañe bu Sadio Mané nga yaakaar Sadio Mané ko dóor est-ce que du Sénégal gépp ñoo man ko dóor bal bi xam nga 15 millions Sénégalais. Ah. que bal ñu ko jàpp. Hmm. man yàlla seetaan ñi ma toogoon di seetaan nañu ñoom match bi ba tatee penalty bi Sadio Mané. Hmm. dama ne li ma gëm mooy lu mu mën a xew moom coupe bi lay xaw ma benn sikk sàkk parce que xam naa ne yàlla dinaa doon ñun tey. ban moment nga ma wax ma ko. ci suba nga ni ma lan. man la ñaar mbir moom gën a neex si bi. mooy hmm. tey coupe bi fi ñëw France Sénégal. Hmm. le 13 mars. Modou Lo du muy du a neex ci 2022 bi moytul dem de <laughs> moytul dem de. booy de ñu ngi fi di xaar ci buntu TikTok bi lañuy tax ragal féete mhm. day bu dee mbiru Sénégal mhm. kenn du féete fee kii féete ñun ñëpp day am fu ñuy féete mhm. donte que dina am ñoom far ñu Sénégal sax mais nañ ko lépp ci suuf lii rek nekkatul mbiru Sénégal mbiru gox la ak gox dëgg la ku ne da ngay ngéem mbër dem si moom yaakaar waa Pikine fii ba suba boo leen ne mullo ne dañ amaa bal ñu waa Parcelles fii ba suba boo ne mullo dinañ daan am ba ñoom di gudd. moom la ñu mooy di gudd. kon ku nekk fi nga nekk dañu faa taxaw su lu wér am gëm-gëm ak sañ-sañ ay yaqin ñu sa mbër day am ndam. Hmm. te boo déggee Ama Baldé ñu waxee nga xam ne koo di. waaw ah, gis naa confiance bu rëy bu muy dégager moom. dem ba taxaw toll ni Modou Lo roi des arènes. Hmm. ak ñëpp di la seetaan en direct nga taxaw ñu barke sëñ Fall. Hmm. dinaa war sa kaw. waaye li nga xam ne kooku lu wér lañ ko dee. mais tamit mu dul lu ko mu loo tontu. lu bay lekk di cip cip moom la xar lekk ni ndigal am na leneen lu mu wax yamul ci dina daan Modou Lo mais neen ko bi nga dalee bëri ba léegi mosoo dem ardo te dinaa la yóbbu Modou Lo moom mbër buy génnee dina dem si lamb ji amagu fi ah sëñ bi est-ce que du dangaa far rek ñaa ah. yamatoo ci ñaanal Modou Lo rek moom la wax nee la day day xam ne wërsëg Ama Baldé yëpp amul sens doo benn bu dee fitt bu mu la <laughs> ñaar bu dee doole lu mu la doole Ama am na fit de ñett bu dee jàppale ah ñeent bu dee baat mu la na am na fit am na doole sëñ bi am na jàppale ku daan Papa hmm. daan Tapha hmm. daan Zos xam nga Ama daan Balla Diouf waaw ah, sëñ bi waaw Ama Baldé Ama hmm. Baldé ku taxaw ne du ndaanaan xamoo làmb ndaanaan pire la pire nekk ndaan moo waral mu waay fa ay morom moom egg fu egg di bëgg wala beneen mm-hmm. loolu am na fi am na sant lu muy def am na garak am na tamit jàppale am na mi mais nag mbooloo mooy da jëf jëf waaw lu waaye wax wax wax boog seen nit ba yëg na la ñun combat Modou Lo Ama Baldé ñu ñoo xool daf du ñeex loolu am na solo mais dañuy ñëwaat ci sa gars yi rek sa gars yi keroog gis nga biñ leen dalalee ci plateau télé bi 2STV ñaam ray nañ fa sax benn mala ñu bari ci sénégalais yi ñaawlu ko ne Sénégal dañu waroon génn ñu bari dañu waroon génn am na ci ñoo xam ne sax mere nañ ki nga xamante ne moo doon def émission bi te kooku tamit vraiment rayul ginaar mais ñi fa nekkoon ñoom ñoo fa ñëw bi nga seetaanee émission bi gis sa moroom sëriñ si niñ doon def Kounkandé moom moom laa ci gën a faaw borom Sénégal du jël coupe moom moom moom laa ci gën a faaw man Kounkandé dama ko bëgg sama xarit la man dama ko bëgg xaw ma fu mu ne nekk kon woo ma téléphone man laa bëgg man parce que engagement yi muy jël dama ko bëgg bi nga gisee loolu ban gis-gis nga ci am. waaw damaa gën a xibaar sama bopp. ñun hmm. sëriñ si waaw damaa a xibaar sama bopp xam ne bu jëmoon tey sax ma wax si média yàlla sëy na ko ndax loolu du xam-xam musulmaan bu la hmm. loolu moo gën a yomb pour ginaar boobu mu def noonu bàyyi nee naa la bépp sëñ boo gis muy toog ci télévision wala si meja di wane kiiraam soo bëggee jàpp fenkat dëgg jàppal ko hmm. bu mu tuddoon la toog ci télévision wala ci di wane kiiraam boo bëggee kii fenkat dëgg dëgg dëgg dëgg jàppal ko yéen da ngeen a mënul moo tax moom mu mën ngeen koy kii xam ko ci biir. mais nekkul pour bari ñu doon xam bari na de te ginaar googu nag ginaar hmm. waaye fu ko nag deux mille rek ginaar day seet biir. Hmm. yàlla si leen loolu loolu ñu koy ñaalu bu baax a baax parce que ñun nag duñu ay yofu ñu ay jullit lañ. Hmm. si loolu ñoo fi ay mag yu baax si luñ tubaab tudd. xale hmm. hmm. ko a jom yenn yi bàyyi Sénégal gisuma koy mën si tur yàlla jëus hmm. tagg xaat yi gisuma ko leen si mën fii dëkku ñaanu ko xel lu fi waaye ñaan dafa war a nangu si boo ko selalee ba pare gëm ko mais ñoom tey dem nañ ba gëmloo ni ñi boo génnewul xar bu ñuul wala béy bu ñuul wala ginaar bu ñuul sa ñaan du sotti danañ ba gëmloo ñu lépp lu deret bokkul baaxul te lépp lu deret ànd seytaane la hmm. kon mbir boo ko gëmee baa nga mën mën nga koo ñaan ba mu sotti te deret bi génn fu deret war génn bilaar bu weex war a faa mën génn wala groupe weex wala groupe bu xonk nga ko sar kii des nga mën a sukkandiku. bu mu moom plateau bokk ñu ko ñëpp nag man gi ñoo ko sëriñ. Hmm. déedéet xam nga mëri la doon Prince moom na naa ko mais ko doon xeeb naa ko. Hmm. lu tax nga xeeb ko Prince moom. parce que boole woon naa leen plateau yéen ñaar ngeen toog waxtaan waxtaan. parce que foogoon naa ne àdduna du yàgg ba ay waay hmm. xam sa diñ xam lay woo fenn muurul njëkk ñi du ñoom ba toog sa koñ. yow bu ñu la woon doo dem. man la mais si rek man su ma bëggoon wax tey si damay génn télé am naa connaissance yu ma mën a yóbbu si télévision yu bëree bëri bëri bëri bëri. Mhm. du ko def. lu tax. sama xarit maa ko nee na ma bu la neexee mën naa laa fayal benn émission. loolu gën a wóor preuve nga. ndeysaan. baal ma laax amul sens. te koroog ñu fa toog ñëpp xeeb nañu te ay kunkaana boo bokk ñoom plateau sax dan lay ñàkk a fay yow sëñ bi soo def naaw ñu xeebaale la waa jooju ku xees moom moom rek naa xam dara du jëriñ. ak hmm. kooku sëriñ ba léegi sëriñ si nañ defar seen bopp askan population Sénégal dañu xoolaat seen bopp ba jël liggéey hmm. ki liggéey ba sonn am benn cinquante mille wala benn cent mille ñooy jox la ko yow sëriñ bi nga jël say ginaar lekk ba suuf jël say suuf ba jox ñu ko demal ñu ko jox dara baaxul am na ñoo xam ne ñu ngi dem sëriñ ñoom jox nañu moo ñu tëj hmm. barke alxuraan ko jox ñu sang wala ñu naaw fa la ñuy jaaree tëju bi daa ma xiyaama baa ji tee cinquante mille nga war ko yóbbu sëriñ hmm. jox sa yaay jëlal beneen jimi jox ko ñaan ma muslaay fi hmm. de dama sëñ boobu wóolu ko am muslaay képp laa soxla sëriñ bi duñu laal mille de sëñ bi xalaatuñ ko sëñ bi du laal dix mille de waaye rek sarax ay un million lañ la wax cinq cent mille trois cent cinquante mille sarax rek fay bi ñëwagul non sëriñ yi duñu laal dix mille doom yi ni ñu rawantee si ñaanu waajur yi dëgg la ridallaahi fi hmm. ridal waalidayni hmm. saa yu bëggee am ngërëm yàlla commencé ngërëm waajur hmm. bàyyi semence daa nuy suuf ñoo la dañ laa liggéey rek ko def lu gën a doy war mi noonu nit ki dafa am jaaxle ñëw yow nga war koo dalal mais nga koy gën a tegaat coona ay dañ laa suul si armée rek dañ laa sànni géej rek dañ si dex eh, nag sëñ bi loolu boo amee est-ce duñ ko wax amee yow boo gisoon tey ñu suul kenn ci armeel wala ci ay sëlëb ay affaire yooyu doo ko wax. waaye mën naa laa xoolal am lu ma gis yow lu dooy waar. Hmm. man la defal ma sarax bi ak sarax bi ak sarax bi yooyu suñu bopp génne bu ko rek xamal ni ma ne kii day naan di man maa ko liggéey sama kurus sax ma lay jox la am sangu la am taxawal am naan ki mën nga ko aar doo ko doo ko jox te doo ko jox naan doo ko ko takkaay fi nga toog nga toog. Hmm. doo sa kurus baat bàyyi jëli àdduna dafa nekk te mhm. nit ñi dina yor njaboot yor seen i soxna yor seen doom dépense di ñëw feebar di ñëw jàng xale di ñëw mhm. leneen leen di ñëw kon sëriñ si nan xoolaat seen bopp ngir yàlla te ni ngay gën a naw ñu ñoo dàq fenn parce mhm. que alxuraanu karim ñi sol yenn grand bu yi toog si télévision yi ak si internet yi di wax lii ak lii ak dara amu ci sëñ bi daa mel ni dangaa mer dama gis ni ngay waxee ngay waxee beneen ton boo xam ne xamuma ko woon ci yow dafa mel ni dafa am lu la métti de. waaw parce que ñun ñëpp ay ndaw lañ. Hmm. toll si buntu àdduna te nit wërsëg di sa xaalis la bàyyi sa wërsëg àdduna mu neex neex a neex ba man ma yor ko. Hmm. yàlla na mënu ko yàlla ci man sama wërsëg ñu ngi ci mais nañ bàyyi ñuy teg doomu aadama si ay métti moo ñu nekk bitim réew dañuy sonn ñu ne la ñu amee seen xaalis ñuy taw ñuy liggéey. war koo mën a envoyé seen waajur yi hmm. mais am si yow yaakaar tax ñu jël deux cent wala cinq cent mille yónnee tey bëri na sëñ boo yónnee cinq cent mille doo ko dégg bul sonn bëri na sëñ boo yónnee deux téléphone bul sonn te ñu mën si xam du jeex du xaaj sa ñu génn dégg na woon seen bopp sax na la amul benn sëñ bu nangoon jël engagement taxaw ne Sénégal dañu jël coupe bi kan la bu ñu sa waajur xoolal si net bi yëpp ban demee ba xam ne équipe bi dem na final da ku ne commencé bi ñu naxaree ni Sénégal départ départ muus kenn xalaat xalaatul woon ne arrivé gaynde bi dina ñëw kenn kenn génnuwul hmm. bàyyi li nañ defaraat suñu suñu toogaay ñun sëriñ nañ defaraat suñu toogaay te sëriñ du toog si plateau hmm. di xas moroom sëriñ cuune foofu la tàmbalee hmm. mais nag ñu nag sëriñ pour sëriñ ñu nag bàyyi sëriñ daa yomb de ay sëriñ am Sénégal de. courtier yi est-ce que nekkul moo ëpp ci réew mi. ay courtier si bare na de. ñu ngi ëpp tey man bàjj day ñëw si man maa ngi dem saa bi nekk riba du ñaan yàlla nangu. waaw ah, de yàgg ko wax. bi nekk riba. Mm-hmm. du ñaan lu yàlla nangu. man nag am na sëriñ moom bi daay ma xiyaamat du ma toog ñoom plateau. Mm-hmm. mën naa ñoom duñ benn. moom bëgg a def plateau bu rëy wasaare ay invité surprise yu garaaw bu war a toj ki gën a ànd ba toog. non yow yow yow yow yow boo dawee sax ba xam ne da ngaa daw de sëñ bi doo daw nga. yow plateau bon ma ah. fekk si la. Ah. waaw yow moom yow yaay man. ndeysaan man maa yow. yaay sama xarit bi. waaw yow moom xam nga nee naan marquage période day xam ne wut si. ndeysaan su ma diggante ak yow. Hmm. lënd la ak maar. ndeysaan gis nga ko si diggante. déedéet. muskaam nag moo dàq. Hmm. ay ndaw lañ. toll suñu mbiru àdduna. bu ñu yàqam dara. nañ def temp hmm. temp. lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg bu hmm. ñuy dégg millionnaire ak milliardaire. Hmm. day métti wala mu koy dégg. waaw loolu moo amul sax sikk sax. ndaw boo nekkee ci yoon di dox. nekk si lu rek fonk say waajur. la mat bàyyi jox ko ci lu baax. ku la mat yaay jox ko ci lu baax. li neex na de. neex na kay Sénégal <laughs> dëkk bi dëkk bi li fi nekk kenn mënu ko wax. di nekk li pay bi kenn mënu koo wax. Mhm. léegi nag maa ngi gis léegi rek gis naa si YouTube bi benn sëriñ bi génne moom moo dem xaw ma fan ak fan fan génne liggéey mu tax Sénégal jël ko. moomee leen na ko boppam. waaw joueur yi moom defuñu dara. entraîneur bi defu dara. Sénégal fédération bi defu dara. moom moo def lépp nañ ko nangu rek. waaw te bàyyi li nekk joueur yi gàcce ngaalama daal. wallaay gàcce ngaalama xeex nañ ba xeex jotee. def nañ fulla. Mhm. def nañ fayda. Mhm. def nañ jom. te loolu la ñuy xaar doomu Sénégal. dëgg la doomu Sénégal fépp fu mu nekk ci àdduna. Hmm. yóbbu ko drapeau Sénégal su góorgóorloo rek yàlla ànd ak moom ndax ñu ñoom kenn amul. maa hmm. ngi bilaay amul. dëgg la dëkk yëpp bëgg nañ ko mel ni El Hadj Malick. yëpp bëgg nañ ko mel ni Serigne Touba. dëgg la dëkk yëpp bëgg nañ ko mel ni Sénégal. dëgg hmm. Sénégal. ñu ko yàlla dëggal. dëgg la bu ñu xeeb suñu bopp. bàyyi ñu fekk ay at yu néew ñun dootuñu dem fenn ci ñu koy def Sénégal. yàgg nga ma ko wax. yàlla seet na loolu. dëgg la ñun dootuñu wuti fenn dara. ñëpp lay ñëw. coupe du monde bi ñu wax la mën nañu bëgg koo jëmale suñu bopp. Hmm, mën nañu koo jël. ah suñu joueur africain yi. Hmm. ñooy nekk tubaab yi de. waaw même terrain. Hmm. ñooy jongante ak ñoom. kon la mos des. na Sénégal fii xol yi ànd rek nekk benn waaye fépp suñu xol ñu ngi nekk benn. ñu bañ a am tiraillement. duñ soog dañ koy daan. Macky Sall démb gis naa ko ba muy teral joueur yi. moom it wax dëgg yàlla ku def lu baax nag. dañ la koy waxal. dëgg la man toog naa fii sànni xeer Macky Sall président de la République dëgg la. Mm. waaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax si teral bu mu teral jour yi ndax ku def dégg mm. ku deful doo dégg dara nag dañ koy mérité mm. cent vingt mille doy caaxaan bàyyi lu coupe boo xam ñu ngi toog di ko xaar depuis soixante ans mm-hmm. ba léegi mm-hmm. te soixante ans yooyu noonu ñu avant ñu judd mm-hmm. ñu dàq ñaan foofu ñoo fi nekkoon bëgg la suñuy mamaate maam yooyu noonu dàq ñaan foofu cër bi ñu am suñu borom suñu am suñu sax du ñaan ñooy ne allahumma rek yàlla nangu yoo xam ne yàlla ñu koy yàllal du benn sëriñ yàlla la ak jour am fulla ak fayda ñii seen bopp di toj ñii seen tànk yi dam ñu dem rek ba jeex hmm. cent vingt mille yombul déedéet ba pare fulla ginaar yombul hmm. ñu koy sant di ko hmm. si teral bu mu teral jour yi xool yëpp wax yàlla sedd loolu daal laa mos wax am na solo ñu koy jaajëfal bu baax moom Serigne Mor euh, dañ fi jaaroon seet si ko vraiment ngir waxtaan ak moom ci lu bare bare loo xamante ni boo ñu koy waxtaan ak moom ci ci ci làmb wala ci football wala ci jafe-jafe réew mi du jeex waaye dañ koy jaajëfal bu baax a baax mbokki di leen wax ni dina leen jox dig daje ba ëllëg incha allah. di jaajëfal am lu ma lu lu ndaw rek. dégg mm-hmm. ñu combat guy gi bi ak euh, rëg rëg. guy gi maa ngi ñaan guy gi bu baax a baax a baax yàlla nañ ko koo xam. déedéet da nga koo yéene nam. lu da nga koo te xolam dafa rafet. Hmm. seetaan naa sa émission bu mu def ak yow. Hmm. booy turu xéwal. Hmm. fii yàlla moo fi nekk kenn nekk fi yàlla nga nekk si li mu war a nekk dem say entraînement am di nga ko gérer si kàttan suñu borom. di nga ko gérer soob suñu borom. <laughs> jël engagement ci guy gi te xamoo guy gi wala ma jaaxal. waaw xaw ma ko mais nee damaa seen interview bu mu def ak yow. wax yu mu si wax. ay ñoom dañoo bokk moom benn gox. di xeex pour mu daan. loolu nag yàgg na Sénégal hmm. waaye ñun tamit ku ne am nga seen seen loolu hmm. fi ñu toog dinañ jël suñu course jël suñuy lépp di ko ñaan ba yàlla may ko ndam te si kattan suñu borom dina am ndam hmm. am pour xam nga loolu a huit xam nga bu baax ko war def dina am ndam si kattan suñu borom <laughs> mbokk yi ma bu baax loolu nag engagement wu Serigne Mor la ba boo ko engagement boobu nag comme moo ko jël bu demee VAR ah kon baax na ñu koy jaajëfal bu baax sëñ bi maa lay jaajëfal bu baax sa disponibilité vraiment kontaan naa ci yow. maa gën a dégg maa hmm. yàlla na yàlla loolu jàmm yàlla loolu ñu sutura. Hmm. yàlla sàmm. Hmm. yàlla sàmm askan nag. yàlla def ci jàmm. kenn ku xam si li ngay jëm yàlla suñu borom yombal. bi nga nekk ñuy wasaare. yàlla na yàlla defal jàmm. amiin si gaa yëpp. daf leen sutura bari bari. si barke Seydina Mohamed yàlla